Bismillah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 ñoo ngi nuyu képp koo xamante yaa ngi bàyyi xel rek dañuy teewlu ñoo ngi leen nuyu bu baax di la siyaar jiyee nuyoo bi ak siyaar bi xalifa général de Mouride Serigne Mountakha Bachir du ko ñaanal moom mu yàgg fi lool te wér ak mbooleem njabootu Sayxul Xadiim gi yépp du ko ñaanal itam kii nga xamante ni moo nekk ci bopp kër Serigne Souhaïbou Serigne Ahmadou Mbacké Souhaïbou du ko ñaanal mooy mu yàgg fi lool te wér ak mbooleem njabootu Serigne Souhaïbou ko yépp comme ni leen ko waxe won rek ñu jiru and ak yeen jiru wër koor bi yépp ci nafilé yi sëriñ soy bi té lépp rek ñu jukkee ko ci téré bi du xoratul xayni kon ñu ñëw ci raka, gi nafilé tay gi guddi ga sëriñ soy ku ci julli juroom benn rakka rakka bu ñu na fatiha anna ak inna al kawsara fukki yoon manam ñaari raka la raka ba rakka bu bi nga julli ci juróom benni rakka bu ci ne faatiya maanaam boo jàngee faatiya nga jàng inna ataynaakal kawsar fukki yoon mu ne boo ko defee des na la jéggal bàkkaar des na ko jéggal bàkkaaram yépp bala moo ma jógee fa ma doon fa ma doon ko defee maanaam fa mu doon ko jullee des na ko bindal itam tuyaabay junni hajj ak junni humra ak mboo ak mboolem ak mboolem ku saraxe junni dërëm ku mboolem ku sarax junni dërëm mel na ni itam ku seeti junniy way wopp ak ku gunge ak ku gunge junniy néew maanaam ñuy julli am néew nga ànd ca mel na ni ku maanaam nga ànd ci gunge bi junniy néew mel na ni itam ku jàng ab kaamil ba mu jeex des na ko bindal itam tuyaabay ñu amee jaamu yàlla juróom-ñaar fukki at sëriñ Sooy Mbàkke la anhu ma wax loolu ci téere bii du xolatul xay ni kon mbokk ñu ngi leen di joxaat di dege ba ëllëg ak jàmm incha allahu taala di ñaanal sëriñ Sooy Mbàkke yàlla na ñu ko yàlla fayal wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu jërë ngeen jëf Yeah.